fan ak juróom ñaar bi fiara bi tàmbalee ba léegi waaye nemmeeku wuñ fa mbooloo mu bari lool ñuy xalaat ni tabaski bii di jege si ci la. ça va un peu. ça va un peu. tane na tane na ndànk-ndànk xam naa ni nag melut ni at yi weesu waaye nag tane na tane na moom. on appelle comme chaque année mais pour moi ça va un peu. waaye commerce bi moom demeewul noonu temps yi moom dafa xaw a dëgër moom waaye comprendre na parce que tabaski bi waaw. ñoo comprendre de temps en temps léeg-léeg mu jar léeg-léeg du jar. bu ñu gisul client yi tamit ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di fi exposé ñu ngi fexe lépp lu ñu mën ngir yokk seen ay xam. waaw li ëpp solo mooy ñu bare bari xamante naa fi ak ñoom ba tax na déwén dinaa gën a góorgóorlu ngir gën a yokk samay jéego. waaw contact bi nag moo am importance bi waaw ku ñëw dañ koy jox suñu carte de visite jox ko waaw contact bi moo am na importance trop. exposante yi nga xam ne ñoom dañuy yëngu ci wàllu transformation des produits locaux ñi ngi profité ci suñu micro ngir rek jàllale seen ay doléances. ba tey ñu ngi si suñu loxo weesu nañ fa maam ya nekkoon am nañu yeneen méthode yi nga xam ne moom la ñuy liggéey waaye ba tey amaguñu ay machine amaguñu ay machines yi nga xam ne comme machines yi nga xam ne ñu ngi koy seen waaye yegg seegul machine séchage lañ bëgg kese kese kese nga xam ne suñu defaree suñu produit xam ne dañ koy dugal séché ko mu gaaw suñu jafe-jafe liggéey nag euh, ñun ñëpp jigéen ñëpp transformatrice yëpp laay waxaaleel moom mooy euh, machine séchage yi euh, machine séchage premier ak matière première yi deuxième parce que dañuy financer pour ñuy def sax pour ñuy am sax matière premier yi mais matière premier yi boobu noonu doyul wutañu ay matériel moom moo ñu gënal. xam naa nag jigéen gi dañ ma mere ah, su ma dañ koy lekk dañ koy lekk def ci leneen. mille Tiara quatre bi bëri na lool ay produits yu locaux ak yoo xam ne dafa jóge bitim réew mu nekk ay produits yu am solo waaye nag ñu ne meeku ne xëñ na sénégalais yi ci tabaski bi la ñu gën a tal exposants yi tamit nee na ñu bëgg nañu passé tabaski bu neex looloo waral ñuy woo client yi ñu ñëw xool si bagage yi.